loolu moo tax sax association am efficacité parce que ay nit la yoo xamante ni on peut produire om peut produire un projet on peut produire des modèles yoo xamante ni xëy na peut-être postérité yi parce que damay wax souvent que ni ñun expérience bi ñu am moom mooy on a vécu dund nañ dem dans les zones les plus reculées xam ce qui se passe bokkul avec la personne bi nga xam c'est un technicien il dans un ministère di toog di produire parce que li muy produire bu koy produire par rapport ak ay euh, ay kii muy jot information yi muy jot mais doon ay information capitale yoo xam ne moom en personne moo dem expérimenté ko ba am les données mu loolu mooy suñu fort en réalité et je vous dis que en collaboration avec la Turquie man ak Aziz la fois passée on était en Turquie dans le cadre d'une collaboration de partenariat avec Local University Hospital boo xamante ni bari la aussi a s'engager pour aider le Sénégal dans le domaine de la santé et de l'éducation mais des fois comme problème yëpp porte d'entrée barul am parce que boo nekkee autorité am na loo xam ne da ngay parce que dafa am ay problème yooyu réglé yoo xamante ni bokkul ak problème yi que c'est des yoo xam ne am nañu objectif am nañu engagement te xam nañ exactement ce qu'ils font am nañu expérience gis nga ci loolu bi ñu demee yow Bekir Bekir Okan boo ko tapé di nga ko xam c'est l'ami de Erdogan il a reçu kooku je pense que c'est le deuxième numéro deux en Turquie c'est un multimilliardaire il a pris l'engagement d'ailleurs sax ñoom d'ailleurs dañ ci ñëw euh, récemment d'ici peut-être dans la série on les a envoyé la la visa et tout ça pour nous pour nous Sénégal pour wax ni ñun on est pour travailler pour vous accompagner parce que yow la gis yow lañu xam yow lañu gis bintu yow la xam yow la gis te lépp loo dugg informe ñu on sera derrière vous pour vous accompagner ñun aussi lépp lu ñu bëgg yow si ñëwal nga accompagne parce que sa accompagnement mooy accompagner le Sénégal soo xoolee aussi tamit li tax muy am efficacité mooy y'a y'a y'a y'a média te ñëpp xam nañu information fi mu toll aujourd'hui Lou'Bess TV Aziz a ngi foo xamante ni yaa ngi fay déplacé wu monsieur le ministre informe ñu quand vous voulez ñëw accompagne na en terme dimanche parce que c'est très important aujourd'hui parce parce que tey jii lépp looy def da ngay fexe médiatiser ko ta personnalité war na mën a nekk au vu tout le monde nit ñi xam yaay kan parce que loolu aussi tamit dafa am solo nit si loo ti doon tey da ngay war a taxaw nit ñi xam ne que diw mooy kii diw mooy lii lay def lii ak lii ak lii activités yi la nekk di def mm-hmm. ñun on est prêt on est open à vous accompagner par rapport au Louga TV tout ce que dont vous avez besoin de shooting doon accompagnement documentaire simal nga jaay li nga xamante moom nga bëgg jaay à travers les réseaux sociaux à travers li nga xam ne mooy les médias donc loolu laa amoon aussi pour accompagner